jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ñu ngi toog koo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb muy suñu papa Abdou Bakhoum nekk ménageur sël bu ndaw Ama balde mbokk yi ñu bëgg a waxtaan ak moom lu bare bare ci wàllu làmb waaye rawatina ci champion bi nga xamante ni moom la yor muy Ama Baldé père Abdou Bakhoum maa ngi lay nuyu baax di la siyaar waaw Wassare euh, mm, ngi lay tudd yaakaar naa yéen. Hmm. yéen wala partage rek. Hmm. xam naa ne. Hmm. ndax it vraiment yéen a ngi def seen liggéey maa ngi nuyu bu baax di wax beneen produit parce que xale yoo xam ne yii vraiment itam ñuy dox seen. seen rôle ci làmb yeneen a ngi koy def bu baax a baax maa ngi bu baax di ñaan suñu borom lépp lu ñu fi wax rek mu nekk loo xam ne luy defar làmp la. Père Bakhoum xam nga fa xam nga ko. Ah, ay fante rek la noonu la noonu la noonu la. <laughs> <laughs> actuellement nii dégg nga li nga xamante ni jot ngeen ko jël muy avance Modou Lo ngeen dem ba ci digg bi. mu am ay jeexi jaaxa ñu jékki-jékki dégg ni kii di Modou dafa am blessure nga yàgg wax ci Modou lu bare bari ci làmb da ngay dëggal ni Modou dafa ñemewul Ama Baldé wala blessure boobu da nga koy dëggal ba tey. ba mu ko ragalee tey ba mu bëreeg la waroon a moom. Hmm, micro bi. waaw mais euh, ci wàllu bi muy doxalee. Hmm. waru ragal la daal ci euh, diggante mag xañ na nag ragalul. mais ñemewul daal Ama Baldé ni ma la ko mën a waxee nag ñemewul bëreek bëreeg Ama. xañ na nag day bañ Ama daan ko wala xañ na daal euh, jàkkaarloog moom. la ñemewul wala daal xëy na bëggul ama it am dara xëy na anteesal parce que yéen ñi day xaw a niru soxor sax quoi parce que bu fekkee da nga bëri say mag bëri say morom bëri say rak bëri ñeneen ak ñeneen ba nekk roi des arènes damaa bëgg a bëri xale benn xale nekk sa kanam prouvé jàkkaarloog yow war a yow pendant quatre ans ñaari minutes ñu ne ba ñuy sos naan la feebar nga toog de mu neex la ba xëy suba teel ñu yoroo yeneen tour yoo xam ne sax xañ na la yow neexu la ba tey nii actuellement nii Sénégal yëpp bëgg combat boobu nga xañ ko sénégalais yi euh, ci lu sa coobare bopp. Hmm. affaire ragal laa ko teg daal. yow da bëgg a wax ni loolu dañ ko sos. non maanaam blessure Modou Lo nga war ko masawu est ce que war ni Modou Lo dafa. man fi mu nekk ni wax nii ak yow ak keneen a ci yem amul kenn ku nekk boo demee foo dem am na lay métti docteur bu la làmb léegi nga yóoxu mu làmbaat yóoxu dana am na douleur bu ne sa yaram. Hmm. may leen ko repos docteur yi te du du fenn du weddi morom ma. Hmm. non non non du weddi morom ma. bi nga yëgee ni Modou Lo blessé na automatiquement sa xel. ci ñun xamoon nañ ne day wax day blessé. Hmm. barkaar Alxuraan. foo teg loolu. ah non yooyu itam boobu loolu mafia bi la mafia bi doxale noonu ay mbiram. mafia bi. ah waxal mooy le roi des arènes. non jël couronne bi Pikine daan Eumeu seen bëri ay ndaanaan yu nekk est-ce que Modou Lo mën na ragal Ama Baldé mi nga xamante ni mbërki démb la dugg ci làmb. Eumeu Sène bu amuloon góor du bëreeg Modou Lo waat. bu ko yéene woon dara sax du ñu bëriwaat parce que ñaari da koo daan muñ fekk fa ñaar nit ñi daan leen nekk roi des arènes Modou Lo nekk bëggoon na roi des arènes depuis 2015 dem ci Bombardier Bombardier daan ko. Hmm. mu dellu quelque temps am ko maam ak Balla Gaye Balla hmm. seen ñëw taxaw daan Bombardier daan Balla Gaye jël roi bi ci Bombardier. Hmm. ndax Balla Gaye da jëkk a Mm. daan ko daan Bombardier di nekk roi des arènes su ko neexoon mu ne du ma bëreeg Modou Lo samay rakk nga fi na de bëre jeeg am ba dama na bëre jeeg boo ñaa mm. mais tey jii xëy na bëggoon a bëreeg moom jëlli ba ko Modou Lo daanoon moom la bëggoon a faxas dindi ko defar yoonam ci làmb demee ba nga xam ne bi yàlla dogal na moom Modou amu mm, seen magam la mu daan amu seen tey jii bu dee mag la ci Ama Baldé mu war a bëreek moom ñi naa day bàyyi bëreeg bu bàyyiwul bëreeg nga xëy suba teel xëy suba teel côté bu ne nga wax ne dafay metti mbagg ak ndigg ak bopp ak fu ne nga wax fa ne dafay metti buñ la dàq ci li nga génn fii dem fii la pro mooy yow gis nga vocal yi tudd ay doxaloon hmm. ci ay tànjaak yooyu yow dàquma la jàng hmm. gis nga ca ci lobby yoo xam ne yi teg nañ ko fenn foo xam ne teguñu ko fenn yaa ngi may dégg ak këyit ay faux sos yoo xam ne yi dañu koy wax di kii da ngay xam ne sax li ñuy wax ni c'est pas c'est faux du dëgg mm. waaw waxi dëgg neex neex naa xam mm. léegi combat boobu fa kañ ngeen ko fas yéene bëre seen diggante ak Modou Lo ak règlement bi lan la leen wax contrat bi lan moo ci ne ñun daal ñoo ngi wut combat mm. ku yàlla booleel làmb boolema ak ñoom. micro bi rek ci kàttanu yàlla bi leen CNG bi libéré. waa libération bi mu leer promoteur bi lu lu leen lii ak moom. libération bi leer na waaye le 27 ci kàttanu yàlla mois de mai. laa jël licence am ak des lettres d'édition bi nga xam ne bi mi discuté comme quoi que combat bi moom amatul moom keneen. combat bi le 27 bi le 27 a jëli licence bi nga xam ne bi moom la ñuy confisqué woon au niveau de CNG bi ñuy régaliser combat bi. Hmm. waaw. le 27 bi waaw. Ah. waaw parce que le 27 lañ ma wax. bañ ma wootee. micro bi. Euh, docteur Ndiamé Diop dafa na ma carrément le set mais la ñu la ñu war def benn lettre comme quoi que yow libéré nga complètement boo gisee combat muy tey muy suba ba la xam nga bëre parce que xam nga ñoom bu ñu réglé sa combat bi dañuy téye ñaar licence yëpp dañuy téye licence su euh, Ama Baldé téye licence su Doudou ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne ci ñu téye leen comme quoi que ñoom dat sàngam la ñuy bëree. Hmm. bi ñu ko régalisé depuis ñu waroon leen régal ñu waroon a bëri le 25 décembre ci la ñuy léewoon licencié. Hmm. bi ñu defaatee nag changement le 13 mars la ñu war a bëreet defaat yeneen contrat yu bees comme quoi que bëreetuñu le 25 mars euh, décembre. Hmm. le 13 mars la ñuy bëree. donc bu ñu ko fëttee ak léegi nag amaat na fi gaañu gaañ bi fi diggante bi ñu ne moom bu wéree le 27 mai ngeen di bëree bu wérul. ñu delloo la sa licence ngeen libre bu gis gisee combat bëre ba Modou bu wéree ñëw bëre ak yéen. Hmm. ma jàpp ne nag xañ na foofu Modou Lo moom jàpp naa ne moom ci li test normal normalement ci yoon du bëre kenn même bu fekkee Ama Baldé am na combat ci diggante bi day nekk Ama bëre ba pare. doo ko ñëw bëre seeg Ama Baldé mais amul droit kenn du bëre kenn. xëy ne am na ñu bari ñoo xam ne tey jii xale yi xale jigéen yi xale yu ndaw yi kii sax koo wax na mbër la moo xam ne bii mbër muy arrière di daw kenn warta bëreeg moom sax ñooñu ko yéene rek pour mu bëreeg moom parce que itam mbër yëpp am nañu combat ba mu des moom. ñëpp am nañu combat ah kan ko bëgg a jël kenn di ko jël. mais Ama Baldé dafa waxoon ni ñoom ñaar ay bokk lañ. bokk judd na loolu mosu ko wax. Hmm. Jules Baldé ko doon wax loolu la doon bu gëmloo Jules Baldé Jules Baldé gëmu xam na ne sax loolu mu wax gëmu ko Jules la xam na ne li la dëgër di wax gëmu ko ah no bu ma bu ko gëmoon bi seen waajur wu góor wàññeekoo muy fàllaay mu jaale si jaale si tegu fa sax tànkam. ñëw fa kenn gisu ko fa yaa ko fa gis. na la na la rajo sociaux yi wala télé ñu nga fa woon nañ la woon fu mu ñëwee jaale si. wala nga dem ca kër ga yaay amaa nga ci biir kër ga mu laaj ko ndax la dëgër mas naa jaale si fii la wala déet. koo bokkal di nga deelee wala nga am xewu jàmm te du fa ñëw ama muy takk jabar di ngénte moom taxawu fa. koo bokk dina def noonu. Ama Baldé kan la bàyyi ci làmb ji Père waa kër Double Less ñi Double Less jur ak waa kër ak Pikine gi mu dëkk doo fa. Hmm. waaw. ku dul ñooñu day bëreeg ku dul ñoom day bëreeg yow. géejewaay ku fa mën a dëkk na préparé te xam ne bu ko làmb. waa kër Double lees day bëreeg yow parce que bëri na fa ak guy ga ñaata yoon ñaari yoon. ñaari yoon guy gi fu mu dëkk. géejewaay ah, yooyu yow lañu kii noonu rek nañu bàyyi yooyu Double Less daal li mu jur waa ak doomi Pikine yi mu bokk juddandoo la dul bëre promoteur mu ngi leen di démarché pour Ama Baldé la dëgg. ah waaw man de maa ngi ma ubbi naa samay buntu daal. ma kenn defuma ci kenn ku ci ñëw ma wax bu juboo ci kàttan yow yow mii taxaw nii sax boo yoroon léegi avance bu ñu juboo waxtaanee léegi nga am avance ba ma joxe ba. Ah, man moom bu la maa fay ñoo ah, ah, ñi koy fay ay jaam la ñi comme ñun rek maa yow ak kenn la ci yem rek te suñu borom tabax li mu yor jaam ñi pour jaam ñi rek la. soxlawu ko dara boo xëyee ba ngoon ñaanoo ko sax mu mere la. Hmm. dara jomb la dara jomb ñu. Hmm. leer la la. Lac de lan ngay gis ni Ama Baldé noonu la mën a góorgóorloo bëri Lac de Guiers 2 ba daan. non mu Lac de Guiers mooy war a góorgóorlu bu <laughs> combat ba na góorgóorlu. moom Lac de Guiers. lan lay góorgóorlu yan yàq la koy. taxaw góorgóorlu bëre bu taxawee na góorgóorlu li góor góorlu def. Hmm. góorgóorlu bu ma wane dara lu lu fi góor. Eh, na góorgóorlu kum bëreel wane na njàmbaaram. wane na fulla ak xarañte ba daan. arrière kay ba balu ginnaaw kay ci xare boo ko commencé am ci xare doo. amoo manoore eh balu ginnaaw du du du ndam te kuy daw da ngay yem balu ginnaaw waaw. la da ngeen di Ama Baldé bu neex la bu amateur yi soxla. waaw combat jànq la ah, comme yeneen combat yi parce que combat la boo xam ne mosu ñoo bëri ñoom ñaar te wax ju ne inventé nañu ko te c'est faux. <laughs> àla kulli dañoo war a bëree dañoo war a bëree li wóor mooy euh, jàpp naa sax bu ci bés ba dana dana da ni muy bëreeg Ama ak ni muy bëreeg ñeneen ñi xañ na dem du nekk benn ah déet dama ragal ne xañ na nit ki mënoo mënoo ngay wax li ngay wax ba pare ak say baat ña ci stap bi Ama Baldé taxaw mosuñu laa wax dara lu teggi néew loo xam ne lii kenn waru ko wax nga taxaw di leen wax di leen dëkkaloo ay baat yoo xam ne teguwul fenn am na benn xarit xañ na boo xam ne bii nee nañu Ibou Faye la xaw ma seen wax na ko Ibou Faye wax na ko nee ay xarit lañu mais bu ñu combat suñu combat moom bu taxawee may nañu ko Ibou Faye moom mu nekk ci ñun ñu libéré ko mu dem ci moom. Ibou Faye lan la day xaritu Jules Baldé la rek bokk ci suñu écrit sax mais. xaritu Jules du dara non kii rek courtier yooyu la courtier Serigne la xëy na ndax na day jàpp moom ngeen di xëccoo Ibou Faye moom. déedéet déedéet déedéet man kay xëccoo ma parce day fekk nga xam dara wala dara xëccoo ma ak moom dara. amul lenn lu may xëccoo lan moo ko mën a daal su ngeen ko jël Lac de Guiers daal duma rek dóor rek comme ay dóor la ragal ah, boo dóoree boo xàccee waaw boo xàccee mu tàll loxo yi kaw arrière doo génn pesal rek pesat xam nga mag moom boo jikko jëpp nga ca loxo yëpp lex ba dóoral pes rek ah, kenn du ko dóor kuréel pes rek lañ koy def mu taxaw ah. <laughs> itam actuellement nii xam naa ni ñu bëree bëri bëgg nañu xam Ama Baldé ak Lac de Guiers fu contrat bi toll parce que Lac génn na def sorti barki démb hmm. nee Ama Balde comme nangu na nañ laaj Zil bu Zil nangoo moom pare na pour jël ah, avance léegi dama bëgg a xam ba xam yéen staff bi toog hmm. ngeen réunion waxtaan ne pare nañ pour jël Lac de Guiers. Ama Balde bu bëree du yóbbu kenn kër fa lay lay yóbbu moom Lac de Guiers mës a bëree ba jine sul Balde saako ceeb a ngi nii yooyu mu wax na ko teg fële. Zil hmm. Balde du bàyyam mës a yorul dara Zil Balde du ko ñaan du ko du ko may Zil Balde du dem ci moom di ko ñaan du ko may. na bàyyi yooyu muy wax noonu bu nangoog mu nangut masa combat mi am yëpp benn bu na ci mu ci tàggu si ba ne ko ndax dama bëgg a bëre wala bëréewu ma amul day wax lu ko neex na bàyyi sa waxam yooyu muy def hmm. su bëggul bëri ñun bëgguñoo bëre moom waaye na ko leer na adversaire am la hmm. muy tey muy suba cent ans quatre dimanche yàgg naa ko wax la bu bëre moom dañoo war a bëre su bëre wul ak moom dañoo war a bëre bu mu leer bokkuñoo moom dara xaritoo ñoom kon xiir bi mënul ñàkk bokk ci. bokk bokk mafia bi bokk ci waaw bokkul xiir gi dal la bokk gi ah, gi sax dama ko gonoree woon xorom ko. Ah. di ko xaaree Modou Lo daw na dem ñemewul tàppet na ragal la. ah, ah moom la ñemee nee nañ moom gaynde dégg naa sax ñu ne moom gaynde la. bu ñëwee nag moom. ñu caw ko ko dana daw non kooko koy mooy jàmbaar ji daw ndax Modou Lo koy dàq bés bu ne. kooku laa waroon a bari gaynde gi koy dàq laa bëggoon a xamal ko ne yow kii la rey bukki ba ko gaynde <laughs> ba muy fontoo gaynde mm. takk ndomboy gaynde bu mu takk mu duggi daf du ko fondoo gaynde daa génn rey bukki bu ko fopp tëral ko ci buntu kër gi ne ko kaay jël ndawal gi mu génn bukki bu ko fuuf mm. mu xam ne ki rey bi bukki bii mën na maa rey bukki mu ne ko nijaay gaynde loo wax loolu mu noonu la demee mm. waaw moom mi koy ki koy dàq ñemwu ko laa bëggoon a ren li ci boppam mu gën a mu gis moom lay jaajëfal baax naa ci yomb rek bu baax a baax di ñaan suñu borom tabaraka la may leen jàmm ak salaam di ñaan nag rek ah journée yi ci des ci làmb làmb muy làmb ju neex ñu démb ñoo ngi woon arène national ci suñu diggante ak moom gett ak yi mu tëggoon ah nañ leen ko xajal rek quoi parce que jàpp naa ne sax làmb yi bu ñu ko xajalee ah gars yi mën nañoo dem ba tekki dara ah, parce que gis nga bugg yàggu rek def na fu benn ay ah, au niveau de kii gars yi bari bëri ci sénégalais yu bari def ci seen gis ci seen bopp. dañ ko jàppale bu baax. yéen itam ñu bàyyi leen nag ngeen di def seen liggéey. war nañ presse bi ndax woo nañu ci open presse yi ndog yu yëpp presse bi dem jàpp ci liggéey bi dara desul lu làmb yi ñu ne ñu de ngeen di bàyyi trois jours après combat bi nga jàll maanaam vidéo bu kat yi vidéo bu dem ba neexatul askan wi. ngeen doog ko dugal yéen site internet. waaw loolu loolu lu ñu waxtaan ak moom la rek parce que xale boo xam ne ku mën a déglu nit la xëy na am na écho yu jëkk a dugg ci moom ba mu def loolu vraiment mais bu fekkoon ne rek dañu koo teel a yëg ñun ñi nga xam ne dañoo bokk ak liggéey bi di ay milonte nga xam ne dañu koo jàppale pour journée bi réussir gis nga nit ñi euh, toog nañ lu yàgg te ñëwul waaye nag kenn ku ne ci sa xol ba ngay def rek ñu ñaanal ko léegi itam jàppale ko bu baax a baax làmb ji amul débordement tuuti làmb ci toj mais nag xolam bu rafet moo tax sax làmb ci tojul ndax foofu ñu foofu xeex boo am ci digg gi enceinte ba ba alkaati yi def beneen barrage ci diggante bi mënoon naa toj làmb waaye moom xolam moo rafet ba loolu yàgg lowal mu loolu yegg ci jàmm dañ ko ñaan bu baax suñu borom moom tam jàppale ko ba bu ëllëg nag yooyu nga xam ne moom la doon def ak yéen noonu ba démb loolu mujj noonu vraiment mu xam ne yéen ak moom boo leen bokk liggéey bi parce que làmb dafa laaj ak média te moom yéen comme yéen a yore média yi dañ bokk ak yéen àndandoo ak liggéeyandoo ak ñoom man bi bu ma ci laajee danaa ko ne la leen di bàyyi ngeen di liggéeyandoo ak que loolu bokk na ci liy defar làmb. jërëjëf moom jërëjëf mbokk yi ab du baaxum lañ dalaloon dégg ngeen yaatal yu baree bari yoo xamante ni leeral na ko ci diggante combat Modou ak Ama Baldé mais leeral na ko ci diggante Ama Baldé ak Lac de yaakaar naa ni làmb la ndax foo xamante ni soixante-dix millions quatre-vingts millions cent millions mën na faa dugg wax dëgg bu ngeen bokkee ndey ak baay sax war ngeen a mën a jàmmaarloo benn tàkkusaan bëre pour ku ci nekk wut loo am. ñu koy jaajëfal bu baax di leen jox dig daje mbokk yi ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf